candidat ñu tey ko ci parrainage bi moo nar a nekk suñu gan à tout à l'heure ngi lay nuyu di nuyu auditeur u RFM yëpp euh, di la gërëm aussi ci prier bi nga xam ni prier nga ñu ko fii tey euh, di rafetlu aussi sa sa taxawaay ci euh, langue presse di nuyu Georges bu baax a baax aussi waaw ndaje bi am na solo trop amal nañu njëriñ trop loolu nag ci ci ñaari fànn lañ koy féetalee benn fànn bi mooy ñun ñoo bindoon euh, président Macky Sall euh, wax ko situation bi nga xam ni collectif bi nga xam ni euh, man mi ci laa bokk di di administrateur groupe WhatsApp bi sax collectif boobu bindoon président Macky Sall sàkku mu indi ay tontu sàkku Euh, moom mi nga xam ni mooy euh, cle de voûte mooy euh, fa li ñuy wax cëppaandaw ga du ma fa mbaxane doone benn ndax foo feneen la mais ca cëppaandaw ga sàkku mu wax ci tontu bi nag yéex na mais daniñu prier naa leen invité naa leen ngeen ñëw fekk si ma présidence ñu waxtaane mbir mi yónneewuñu bataaxal mais daf ñoo prier ci prier boobu nag am ñu ne ñoom bataaxal lañ doon xaar yéex na am ñu ne euh, ñoom euh, dañoo préféré yabal délégation à la place que ñëpp dem te loolu lañ mujj def yabal délégation bi délégation bi nga xam ni jàpp na ni euh, comme ñi nekk ci groupe bi yëpp liñ doon wut mooy nekk njiitu réew li doon wut. Euh, mooy mooy euh, taxawu askan wi ñooñu tey ki nga xam ni moom la ñu tànn pour mu jitee réew mi su leen woowee seen warugar mooy dem wuy ji euh, moo tax délégation dem wuy ji te wax dëgg yàlla la ñu fa jëlee njariñ kese la. loolu la fa jëlee. la ñu fa njëkk a jëlee mooy président dégluñu xam ni lii ñuy wax tegu na ci ay firnde tegu na ci dëgg li njëkk. mooy comme ni nga ko xamee euh, dañu dem parenage deux mille dix neuf mu nekk parenage bu compliqué mu nekk parenage bi nga xam ni dañ ko contrôle bi dañ ko defoon ci rubrique yépp ñu jóge fa ñëw deux mille vingt deux dialogue wax ni léegi dafa war a am benn discriminant maanaam euh, dafa war a am euh, rubrique bi nga xam ni ca la ñuy kale candidat bi mais du nekk fépp bu dee tur bi sant bi Euh, date carte euh, numéro carte électeur bi numéro carte nationale d'identité bi ñu tegoon ci taay ñu ne boo juumee ci taay bi éliminé nañ la mais yeneen yi boo ci juum erreur matériel mën nga corriger bii yoon ñu indi dat de fin de validité maanaam waxtu wi nga xam ni ci la sa carte d'identité di périmé ca lay jeex ñu ne waxtu woowu kat bu fekkee da nga ci juum ca na ngay bindee yow bokkatoo kenn dootu la saytu ñu gis ni ñi nga xam ni euh, dañ leen dàq yëpp dañoo sax dañoo saytu rubrique yëpp te loolu yoon nanguwu ko arrêté ministère yi mooy article 4 arrêté bi dani euh, euh, fànn wa nga xam ni ca lañu ñu mën a dàqe candidat bi fànn wa nga xam ni ca la ko mën a ni yow kat mënoo indiwaat parrainage mooy rek bu juumee ci waxtu wa nga xam ni ca la candidatem di jeex bu juumee ci tur bi mën na soppi su jiimee ci numéro carte d'identité bi mën na soppi su juumee ci numéro carte électeur bi mën na soppi wante conseil constitutionnel ci boppam boo jëlee considérant trente cinq am jël considérant vingt deux moo ni moom fànn yëpp la saytu bu ci nekk boo ca juumee rek dàq na la waaw léegi ñu jàpp nag ni non seulement dañi boo ca juumee dàq na la mais bu ca sax informaticien bi wala logiciel ba nga xam ne ñoom ñoom la ñu defar juumee dàq nañ la itam. ñun kay li ñu jaaxal mooy. Mm, mm. gis na ngeen ak Macky. Mm-hmm. processus électoral baa ngi dox. Mm-hmm. campagne bi léegi mu tàmbalee. Mm-hmm. fii léegi un mois ndax tey le vingt cinq janvier le vingt cinq février élection yi daa war a am normalement. léegi lu ca euh, Macky mën ak ba xam bu ca mënee itam. xaj na fem xaju fi ak euh, lu mu mën a jur ci élection yi. waaw xam nga xam nga xam nga euh, tey ak élection yi Babacar lu mu lu mu avancé avancé lu mu xat xat xat du tax nit ki suñ ko defee li nga xam ni jaaduwul mu jooytu ko fa mu ko war a jooytoo du tax nit ki di dañ ci mettitlu situation bu mu nekk maintenant nag collectif bi dafa am ay plan d'action bu ci nekk. dañ ko teg ci délai ak durée te bu leen fàtte ni euh, collectif bi am na ci ñi nga xam ni neuf candidats yi nga xam ne tey jàll nañ te ci lañ bokk te li ñu njëkk am comme succès ci combat mooy ñun jàpp nañ ni euh, euh, problème bi ñu teg ci taabal ji moo tax bi ñuy saytuwaat ci deuxième lot bi maanaam ñi nga xam dañoo waroon wuti ay remplacer seen doublon ñu jàllale ci douze ñun jàpp nañ ni combat bi ñu bi ñu tegoon moo tax douse jàll ndax mënoo comprendre euh, ñu ñu ñu xool quatre-vingt-treize jàllale ci seulement neuf ñu walbatiku euh, xoolaat euh, li ci des yëpp presque jàllale douze yëpp jàll xam nga loolu képp kuy observer mbir mi bu baax da nga xam ni am na lu ko wundu xam naa ñun aussi combat bi poussé na conseil constitutionnel mu xoolaat nam bu baax mais au-delà de ça Macky Sall déglu nañu président Macky Sall euh, nee na moom situation bi moom ci boppam wax dëgg yàlla euh, xam na ni am na ay problème yu ci am. d'accord naa yéen ci récrimination yi. d'accord naag ñun ci problème yi ni mu tëddee d'accord naag ñun ci euh, li nga xam ni doxalee nañ ko te jàpp na ni mën na bañ a doxe noonu mën na gën mën na gën a ñoŋ. d'accord nag ñun aussi euh, ci tooñ bi nga xam ni tooñ nañ ko candidat spolié yi wante nag comme li Babacar Fall wax ay ay ay ay moyens dañoo limité. justement fa la bëggoon ñëw. Mhm. yéen seen lettre bi da ngeen sakku ci Macky Sall mu def la ba ñu reprendre li nga xamante ne moo di processus contrôle parrainage mhm. lan mooy tontoom. no tontoom mooy ay pouvoir am mooy ko ko ndax ñun demandé wuñ ko report. nanguwuñu report ndax aussi ay garmi lañ dañoo am ñu nekk ci ñun ñi nga xam ne jàll nañ du dëgg. waaye daa mel ni bu ngeen amoon rapport itam jël de. ah mais loolu mooy dëgg. ah bon xam nga ah si non du question. doon kii ah bon ah. du question boo amoon rapport mooy bu boo amoon saytuwaat mooy gën ndax comme comme li ko docteur Gadio. waxee saytu ko kay ko gën a mën a yombal. non non xam ah. xam nga xam nga xam nga docteur Gadio dafa wax lu yomb dañuy. Euh, man man man man nekk candidat moom gënal gunge candidat xam nga <laughs> moom bu fekkee dañ ko tooñ te jàpp ni tey conseil constitutionnel li ñu dese ci campagne tàmbali bu bu bu bu bu bu delloo si waatoon xelam. mais seen problème mooy euh, bëgg ngeen report mais nanguwu leen ko ŋaang euh, nanguwu leen ko assumer ñu bëri ci yeen bopp. waaw mais bu ñu bu ñu amee lu gën report pourquoi ñu bañ koo jël. conseil constitutionnel ma na mën a seytuwaat mbir mi digg. xam nga xañ ba lañ fa jalewaat aussi euh, mooy kaawu euh, euh, ñi nga xam ni ñoo ci kaso bi te te te. te bu ngeen fexee ba nu reporté élection yi ngeen def lu neex Macky am déet. noo gëmuma ko gëmu gëmuma ni président Macky Sall mi ngi ci sax projet rapport contrairement li nit ñi yaakaar gëmuma ni président Macky Sall mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci yoonu yoonu toogaat fi ndax xam nga coow li ñuy wax yëpp ki nga xam ni moom nee na nekkatul candidat. te tëdd na waxtaan ci bu baax ki nga xam ni depuis deux mille dix neuf ma nga dem dëkk këram fee ca Mermoz bañ na ba dëkkatul Palais kooku kuy seetlu bu baax xam ni préparé wu na pour dem yoonam donc ñun jàpp nañu ne am na benn intention report mais bu sañoon buy dem di bàyyi réew mi bàyyi ko ci conditions yi nga xam ni dinañ dem élection te du am benn coow moo tax fi mu toll. jamono ji da nga jàpp ne dafa am ay regret. ah am na regret processus bi nu mu demee nii. dina dem ci anam yi nga xam ni tey euh, tey boo xoolee problème mu parrainage yi problème yu posé ci àdduna bi yëpp gis nga tey dem bi ñu génnee RFI tele ba nga fa taxaw yéen ñëpp ñëpp yow sa instant bu ne yaa ngi xool sa sa ña fa teewal yéen euh, euh, rajo bu mag bi ak tele bu mag bi na ci réew mi donc yéen ñëpp yéen a ngi taxaw di xool mbir mi ndax gis ngeen ni lii kat doy na waar xam nga bu ñu sañoon ñu organiser élection yi nga xam ni du am lenn lenn lenn lenn lenn li nga xam ni da ñuul. te lii nag mu neex mu naqari am na lu ci ñuul ba pare loolu nag mooy problème donc da ngeen jàpp ni bu dee nii la wéyee bañ dem ci élection yi du du du doon élection bu baax. lu ne mën na cee xew xam nga nag euh, comme on dit euh, euh, bu fekkee. maanaam élection bu am ami gàkk-gàkk loolu ngeen koy jàppee. waa mais gàkk wax moom am na ci ba pare. ndax xam nga xam nga conseil constitutionnel du commision bu war a maanaam teguñ ko pour muy pour muy pour muy calé dañ koo teg pour mu saytu. il faut que nit ñi xam bu baax lan la dañ la teg pour nga saytu teguñ la pour nga kale ki ñu teg pour mu saytu teguñ ko pour mu kale li ñu ko war mooy saytu bu cent candidats amoon sax na cent candidats am mais yow saytu moo la tax a jóg loolu la ñu gëm ñun euh, donc ñi nga xam war a bokk te bokkuñu te dañ leen a teg toor lañ leen teg tegu wut ci dëgg loolu wax dëgg yàlla euh, mu neex mu naqari bu ñu ca demee élection dem nañ ci élection yi nga xam ni mën na am am na ku am crédibilité ku mënoon a génn ci groupe boobu te génnu ca te mënoon a jiite réew mu ci anam yu mu gën a jekke mais nag bu ñu amul loolu aussi ñu am li ñu jël mais waxuñu report xalaatuñu report nekkuñ ci report loolu nay leer ndax buñ ca nekkoon wala ñu xalaat ko day day day day day fekk sax ni nawloowuñu ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal tey yéen est-ce que amu leen responsabilité ci situation bi yéen way politique yi. Mhm. di xarab DGE. Mhm. mbir mu mujjee dem ci conseil constitutionnel ngeen ñëw tey di naan. nañ ko nañ ko nañ ko nangu nañ ko nangu te président wax nañu ko démb nee na situation bii homme politique yi ñoo ko ñoo ko teg seen bopp ca ca la bokk moom. ndax bu ñu waxee dëgg homme politique yi ñoo ne woon wóoluwuñu DGE nañu jël mbirum saytu mi yóbbu ko ca conseil constitutionnel. te conseil constitutionnel kat ñoom seen seen règle yi leen li leen teg dafa dafa doy waar ndax ñoom nee nañ ñoom ñoom ñoom lu ñu wax dëgg la te sax ñoom bu ñu juumee nit nañ jàpp ni ñoom lañ wax dëgg la <laughs> donc xam xam moom nee na lu mu wax dëgg la boo boo yóbbee mbir yi ni ko yow yaay yow yaay saytu bu saytoo même bu juumee da ngay jàpp ni moom wax na dëgg ndax juum na waaw juum na juum na mais wax na dëgg euh, Euh, nañu nangu suñu responsabilité ci loolu euh, te assumer ko te xam ni euh, bu beneen yoon dinañ rectifier mais lañ fa jëlee démb aussi lu am solo la mooy jàpp nañ ni bu ñu génnee ci élection yii ñu dëgmal bu soobee yàlla dinañu soppiwaat tëralin wi ndax jàpp nañ ne tëralin wi du du tëralin wu gën. parrainage kooku kay ça dépendra ci ki fiy ñëw. non non te kenn xamul nan la ñëwee. non mais xam nga ki fiy ñëw lii dana ko yee ak képp ku ñëw laa wax. situation bi dina ko yee. rek dañuy digee ba pare bu ñu ñëwee fàtte loola. dama ni képp ku ñëw lii dina ko yee système parrainage ni ñu ko tëralee nii jàpp nañ ni euh, atteindre na ay limitam au départ baaxoon na parce que mënoo woon a jël parrainage yu euh, député mënoo woon a jël parenage yu euh, comment on di élus élus locaux yi parce que kii proposé woon nañ ko société civile. ba parrainage amul woon de lambay ñaaw. wa waa mais bii moom bu ñu ko tegoon ci yoon au moins dinañ am quarante candidats. <laughs> xam nga ça tamit c'est compliqué ah. wa wa mais Babacar sénégalais yi amuñu droit tànn ku leen neex. quarante candidats tamit loolu vraiment. waaw non dama ni sénégalais am nañ droit tànn ku leen neex on a qu'à se préparer. même parrainage buñ ko buñ ko reprendre sax dina am ñu ñuy kale. waaw bu ñu bu ñu leen kale itam ñu war a kalaamee euh, nee nañ tàmbalaat fii fu ñu jëm on va tourner en rond là. non non kale d'accord mais nañ la rek jaar yoon. nañ la kale rek lu jaar yoon su loi bi ne yow benn discriminant kese dañ la war a kale d'accord ñu kale la ci lépp dañ lay lenn jaarul yoon nit moom euh, Babacar yow yow xam nga loolu yow euh, ku lay suivre ak ku lay déglu xam na ni lu jaarut yoon jàpp naa du looy nangu te lii euh, ku ci waxal ak sa aqulaay taala xam ne jaarul yoon te jaarul yoon dafa jafe doomu aadama mbir mi xalu ndéef la ci yéen parce que wax ji ñemewu leen ko jëf ji ñemewu leen ko audience bi sax Euh, bu makki bi gis nañ ñoo xam ne fexe nañ ba euh, bañ caa feeñ ñoom Abdourahmane Diouf normalement waroon nañ fa teew gisuñu leen euh, Aminata Touré moom neen du gisee ak makki ndax lim ko def gis nañ sax démb ci suba Bougane di ko attaque Bougane moom demul ci ndaje mi demb ndax xëy na dëj bi mu am mais yéen ci boppam ngeen bindandooree te si ñeendoo ko dem ca makki jot ku ne naan sa buux sa morom ne ko demal demal ma toog xam nga tam ces incohérences là c'est compliqué ah. waaw xam nga xam nga réunion bi ñu tànnee candidat yi yaakaar naa ni euh, président euh, Aly Ngouille Ndiaye moo ko présidé euh, bi ñuy tàmbalee ñu bari nekkoon nañu candidat pour dem ca mais bi ñu nee foog ñu def délégation restreinte ñu ñëpp bañ dem ci la ñu bari dellu ginnaaw mais am na ñi nga xam ni ñoo ngi soutenir initiative ba léegi ku mel ne docteur Abdourahmane Diouf tey boo ko laajee dina la wax ni. man kat mënuma fa woon teew parce que amoon naa contrainte sàngam bi nga xam ni du ko wax ñëpp euh, euh, ku mel ne Bougane Gueye euh, ñoo ngi koy jaale bu baax président Bougane moom aussi amoon na benn contrainte majeure mooy que kooru gorom la ñu waroon a delloosi yàlla na ko yàlla yërëm yéexee yéexe ñu ku mel ne ñeneen ñi ci ne amoon nañu gànt donc ñi amul gànt ñoo dem. am na ci ñi nga xam ni nag wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg te yàlla tax euh, jàpp dañ doon daw vindicte populaire bi parce que li ñu doon daw mooy sénégalais ni ñii kat report lañ fa wuti loolu lañ doon daw mais dama jàpp ni politique nag boo ci nekkee. politique nag politique nag sëñ Gueye duñu la jàngal dara. politique moom c'est prendre des position et de les assumer. merci beaucoup merci ah. beaucoup mon frère. merci beaucoup gis nga mënoo mënoo bindu bu lettre président de la république nga ni ko maa la bind lettre muy institution bi nga xam ni yow da bëggoon toog foofu. mu ne la kaa waxtaan nga bëgg a manqué réew mi respect bu toll ne ni du ma fa teew parce que loolu du manqué respect Macky Sall manqué respect sénégalais yi ko wóolu ba teg ko fa la parce que institution la institution bu la woowee demal wuy ji ba xool loo fa jël te jëlee nañ fa lu am solo euh, euh, Babacar ndax lañ fa jëlee mooy kaawu jomaay bi ñu ko expliqué président ndax président boo xoolee tey kaawu jomaay fay lan la ñu accusé jomaay fay boo xoolee post bi mu def ma ay magistrat la concerné Euh, fa mbaxane doone benn ci magistrat yi mooy conseil. constitutionnel dañ looloo ko yóbbu kaso waaye. ba mu demee ci biir bañ jàpp Sonko dugal lañ teg Sonko moom it ñu teg ko ko looloo gën a. diis la mbiram mais xam nga xam nga lépp ci mbirum état la aaju. lépp ci mbirum état la aaju conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci mbirum état moo taxaw ni ko yow kat mën ngaa nekk candidat malgré lii ñu la accuser mën ngaa jiite réew mi. waaw bu fekkee conseil constitutionnel boobu nee na ko yow war ngaa mën a jiite réew mi. malgré lépp conseil conseil constitutionnel kay nag moom vraiment. <laughs> waaw doy na war. <laughs> loolu xam nga jaaxal loolu de facto de facto on a dit au président de loolu dafa génne Bassirou Diomaye Faye ci kaso moom mu ne moom mënul dugal loxoom ci mbirum yoon mosu ko def du ko def gëm nañ ko aussi mais nee na ay avocat am maanaam li état. mën a jox parce que ay avocat mën nañu opposé wu ci demande liberté provisoire mais nee na ay avocat am ak ñi nga xam moom la yilif ci mbirum yoon nee na ñooñu bu euh, avocat basiru Diomaye fay demandé ñoom du ñu opposé wu donc loolu déjà euh, avancé la bu mën a tax tey mu am euh, décrispation maanaam affaire yi gën a mën a yomb gën a mën a woyof ci mbir moom. commission d' enquête parlementaire bi PDS. Euh, dépose nañ sax euh, li ñuy sakku ci assemblée nationale. Mm-hmm. wax ngeen waa euh, est ce que wax ngeen ko. Mm-hmm. njiitu réew mi ak lan mooy tontoom. waa ñun sax nee nañ ko li ñu bëggoon. mooy moom ci boppam. na PDS kay burxul nañ ci ndaje mi démb. waaw ñoo nga fa teewaloon Karim Wade kenn sóoraale wuñ leen woon ay buruxlu nañ. <laughs> waaw ñoo nga fa ñoo nga fa man lañ ko yónnee maa leen dugal ci groupe bi bi ñu waxtaanee ci groupe bi aussi ñu nangu ni euh, ñoom bëgg nañu teew ñu teew si mais wax dëgg yàlla président li ñu ko demande woon ñun sax mooy que état def enquête pour mbir yi leer ci bopp Sénégal lan moo xew conseil constitutionnel. parce que ñun bëggoon nañu aussi au delà de tout ça ñu xam lan moo xew conseil constitutionnel mun nañu demandé na déjà recours voilà comme demandé na recours moom nee na ay député bu ñu ci opposé wu parce que moom aussi bëgg na mbir mi leer. ah bon waaw nee na Macky Sall ci boobu. nee lépp luy leeral commission d'enquête parlementaire bu euh, PDS bi bëgg na ay député bennoo jàpp ci. li mu wax leer na nee na lépp luy leeral mbir mi lépp luy indi lu leer ci réew mi. ah bon moom wu ci. loolu information la jërëjëf. Babacar gi jërëjëf Georges jërëjëf euh, Soxna Naata. maa pare. merci beaucoup Babacar Fall Georges Déthié Diop ak euh, seen gan di leen ñaanal bonne journée ak euh, programme rajo Futur Média 8h jot na ci kanam tuuti incha allah dinañ ànd ak imaam Khadim Ndiaye nekk conférencier